bi itam yàq ko ndax moom nee ñoom daal nekkuñu ci yooyu te doxuñu ci yooyu comme niñ ko waxee woon noree ni anan lan nga ministre lan la mooy ministre de lenergie énergie dolli waat ci pétrole léegi naa yem ci courant pétrole mm. Mm. te bàyyi waa na yem ci courant moom ak pétrole la te bàyyi waa culture ok loolu nga wax waaw dëkk bi dafa am cosaan am aada am lu mu fi yàlla dimbali mm-hmm. mu demee noonu baaxoo noonu avant maa judd benn avant sama ndey di judd benn avant moom muy juddu benn dëkk bi dafa am nu mel am nu muy doxe moom du moo koy changé te mënu ko sax faf gis nga buñ la jiite nga am loo yore da yem ci sax domaine benn mhm. bu dee nit ku nite nga bàyyi domaine jàmbur moom dañ ko tuddee wut te déggagul ñu tuddee ko. mais day artu. te buñ ko tuddee it mu dem. Ah. maa la ko wax fii nañ. moom day dem. moom nee na dem Ousmane. nañ dem ba ci kanam. Hmm. jali ñu. Hmm. liñ naan li ci kanam rawati. rawati gët hmm. ñu ne nit doo sëñ ne woon na nit doo ñaaw njort da ngay ñaaw njort. gis nga population bi bu leen déglu ba jël seeni folie. ne moom ngay demee boo ko defee échoué nga. ñun xam nga lu am. toog ci plateau yi ay toog muy dox jeex na fi léegi lii jeex na fi. ba tax yow nga war a dem wax la ne la waxaan nga bëgg communier foofu non la woon Birame Souleye mi dafay fekk làmb moom boo ko laajee am na mbër mhm. am na comme support ba egg si fii mhm. musique yi mu Youssou Ndour Omar Pène jali bu ñun ni koy waxee. Mm-hmm. wala keneen ak keneen am na koo xamante ni bu ko dégloo xoolam tooy mu koy neex mu koy naqari. Mm-hmm. d'accord Sénégal ñun culture lañ am mooy suñu aada ak suñuy cosaan. Mm-hmm. d'accord buñ ko tuddee dina dem. buñ ko tuddeewul dina dem loolu nga ñi kenn nekku ci. moom dañ ko jàppale ba mu agsi fii moom jàppale koo tax mu doon ministre. jàppale ay doomam moom moo tax. mais est-ce que ay mbëru làmb ñoo ko jàppale. jàppaleen maanaam kii kii mbëru moo kii fi mu xasee nekk amul mbëru làmb amul mbëru keneen ñëpp la fi nekkal mu koy neex mu koy naqari. Mm-hmm. ku ko woo bu jubee dina wuyu fu ñu ko woo dina dem. bu mm-hmm. dee luy defar réew mi la. yaaram làmb day suñu sport national. Mm-hmm. kii ngénte kenn tuddeewu fi kenn ngénte mosoo fee gis nit di ngénte ne tuddee naa. non waxin la rek Ousmane yow. ma je sais waxin la. waxin la yaa ngi dégg. tey jii ngénte bu amoon famille dina dem ñu tuddee ko doom ja day dem toog lu mu ca mën dana ko def mm-hmm. ndax teraanga nag teraanga waa koy fay mm-hmm. neneen la kuñ jam wax sa mbaaxu maam wala wax sa mbaax daa fekk yorooloo maye wala sa maam daa defub jaloore mm-hmm. <laughs> kepp nag dafa am noo xamante ni maanaam jiit buñ la ko jiitee da ngay ko bi mais axlu làmb fii lañ bokk te sport national la ñoo ko moom buñ ko boosté wul kan a koy boosté ñaata jeune ñoo ci nekk di ci daan seen doole. Hmm? Hmm? maanaam président Diomaye Faye mu koy neex mu koy naqari suba ku tee def drapeau dina ko ko tudde hmm. parce que mooy son excellence. mais Diomaye Faye bu jugee ak ay ministre am ak ñeneen ak ñeneen jàppale wu ñun suñ sport yi fi ne lan lañu jàppale yow maanaam jeunes yu bëri ñu ngi ci làmb jeunes yu bari ñu ngi ci football jeunes yu bëri ñu ngi ci leneen leneen jeunes yu bëri ñu ngi ci musique mais ngeen koy def. maanaam te ñu leen ni maanaam wàllum culture ndax loolu lépp ci culture la culture ci boppam dafa am budget bu fay nee boo xamante ni état ko fay teg muy jugee ci ñoom di dem ci culture. pour ñuy dem fu ñu koy demale muy baax. nga bëgg a woon ñooñu ginnaaw ñooñu boo leen wanee ginnaaw ñoo la ginnaaw bi mais nag mais nag Ousmane il faut nga taxaw foofu euh, nee nga euh, dañ leen di jox xaalis boo xam ne pour euh, pour lan la ñu nekk ci milieu bi rek la mais est-ce que tamit ni ñu koy defee noonu noonu lañ ko war def que dañoo dem a dem ba affaire yi dafa dem ba des fois day day déborder la bu amee ku ma am ku ma amul ba te ñoo ne dañuy soppeeku dañuy changer. Mhm. kon nañ xool ñoom joxin ba nan lañ koy changer ba noppi. ok après ah, moom mi wax ko xam naa du ñàkk dinañ ko. ak ñu doog a wax ñu ngi ci loolu. maanaam jëli bu ñu nañ xaar. maanaam gis nga maanaam defagu li ma doon wax moom moo rek barki dem ñoom defaguñ ci sax 15 jours. Mhm. waaw dañoo ma ñoom mais ñoom commencé nañu liggéey. waaw ma maanaam déedéet. xam nga kañ leen commencé liggéey na tey jàng tey. Euh, xam nga kañ leen commencé liggéey. waaw bañ taxawee doon opposition lañ tàmbalee liggéey bi. ibbi tey jàng tey ndax ñoom eh, liggéey liggéey moo leen may lii tey mhm. ñoom ba ñuy liggéey sax du tey ñoom bañ bañ ñëwee rek doon opposition indi lu bees mhm. créer ànd ak Ousmane Sonko mu teg leen ci yoon jàpp ni leer na am na ñoo xamante ni foog nañ ni yoonu Ousmane Sonko leeru te mënoo fexe ba mu leer seen bopp am ñoo xamante ni leer na maanaam ku ci nekk da nga am ni ngay waxee ku ci nekk danga nga am say droit maanaam Birame Souleye moom mënu fi fekk loo xamante ne am mu ne moom moo ko fiy jëlee moom mënu ko mënu fay jëlee làmb du ko fi jëlee mhm. ay parrain du ko fi jëlee nit ku nekk da ngaa bëgg ko la jàppale maanaam ñaata événementiel mooy am lana war a tey ñii di def théâtre di xaar sponsor mhm. lan lana waral ngay am bis tuddee ko jali bu ñuul. bul jaawale nag sponsor ak tuddee boo jàppale laa wax. non non non ay jàppale rek. bu mu boole lu bokk benn la rek sponsor benn la rek koy wut ki koy def jaay jaay bu ñuul. wala muy fës ci li muy liggéey rek mooy maanaam man. mu ut bis xam ni jali mu ñuul ñi mën na ma cee jàppale ma tuddee ko bis wala dara jaale ko ngir lan mu def ci dooleem ndax bu ma ko ëppalee. Mm-hmm. état bi. na leen leer ne ay bisi bisa ngi ñëw dañ leen koy tuddee te maa la ko wax fii dinañ ci def. d'accord alors xam naa dinaa ñëwaat ci yow euh, jale bi ñuul damay daal di ñëw ci yow euh, Ousmane euh, li ma wax léegi nii moom moom moom loolu la gis. mais man nag jàpp naa ne nag ba tey yàq gi gisoo ne folklore yi dafa bëri fii Sénégal waruñu ko wàññi. bon man par rapport ak vision boobu. dama damay du ñu bokk gis-gis quoi par rapport foofu. d'accord parce que gis nga. li ñuy wax folklore lépp. Mm-hmm. booy xool ci culture rek la. la gën a la tënkuwaat la tënkuwaat te culture dafa am lu muy représenté ci dëkk. Mm-hmm. dafa am lu am impact lu muy def ci dëkk moo xam musique la moo xam théâtre la moo xam lamb la comme ni ñu ko waxee. Mm-hmm. loolu buñ ko reyee bu buñ ko dooleelul. buñ ko dooleelul laay wax waruñu ko sax wàññi. parce que ay facteur la. da ngay gis benn musicien. lu mu am ci alal. Mhm. mais ci doomu aadama yi la koy investiraat. ci mhm. lay ibbi ay entreprise ci lay créer ay société ay nit di ci daanaat seen doole ay mhm. père de famille. ay ñoo nit ñoo xamante ni ay sénégalais lañ. d'accord bu dee ci wàllum làmb ji da koy gis. kii dafa drapeau da ci fayee ko keneen ak keneen ak keneen ak keneen loolu lépp ay facteur la. bu affaire yi doxoon nag. secteurs yi buñ doxoon à cent pour cent. ku nekk am ci loo tee bu boobaa après peut-être affaire yi dina changer. Mhm. ci beneen plateforme. mais nii mu demee nii noonu rek la mën a demee moo tax sànq ci biir euh, sama ibbi ma ne mhm. gouvernement bi fi nekk sas bi ñu leen sas wala yan bi ñu leen yan. Mhm. yàlla na woyof ba ñu mën ko kii. parce que dañu am liggéey bu extraordinaire. dëgg la yombul de. bu leen di xaar muy jeunesse bi. bu ñu waxee réew mi soixante quinze pour cent ba quatre bi la. xoolal ñun ñi fi toog nii ci plateau bi exemple ñun ñi sénégalais yi jàkkaarloo ci écran bi instant bi kenn laa ci quarante ans kenn laa ci cinquante ans. donc ci domaine yooyu noonu rek moo leen mën a indil benn revenu. Mhm. pour seen ay besoins bopp mais ci seen ay besoins familial ci côté nag euh, Birame Souleye boobu dama fay laalaat tuuti. Mhm. parce que c'est quelque chose chose intéressant gis nga euh, njiit bul gaaw a jël décision mhm. parce que décision boo jël loo war a continuer la warul doon looy dellu ginnaaw parce que yow la le 17 wala 18 millions sénégalais bootu sa ginnaaw donc li ñu naan avant de parler il faut remuer sa langue mhm. sept ou plusieurs reprises donc noonu la demee mhm. gis nga tuddee la bés immortaliser bés la lu ci mel ni ay làmb lu ci mel ni leneen nag leneen ak leneen nit ki bés bi lay dundal bés bi lay rafetal bés bi lay taaral ba yow mi war a fay sa ticket ñëw sax da ngay xam ni kilifa laa bëgg bokkal bés bi mooy toog ne maay toogee nii donc loolu muy tuddee du alal nit tuddee nañ ko te yëkkatiwul dara joxe wala li ñuy yaakaar mm-hmm. mais Birame Souleye dafa war a dem buñ ko invité mm-hmm. bu demul dafa war a dem buñ bu bu demee dafa war a dem mm-hmm. parce que c'est un Sénégalais yor li nga xamante ni mooy ay ndomba tànk biir Sénégal. Mm-hmm. culture bi nekk culture sénégalais. kon donc buñ la woowee ci bés yooyu da ngay dem liñ lay ñaan kay mooy lan. Mm-hmm. bul jël alalu réew mi di ko joxe. Ah. ci loo xamante ni intérêt benn mm-hmm. nit la wala intérêt ñaar nit. déedéet mais am nga loo xamante ni sa condamné la yaa ngi ko denc sa gafa yaa ko moom. waaw doy loolu loolu nag. exemple bi ma la ci jox. Euh, ki nekk ex maire Grand Yoff avant Pape Modiop. Diop mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm sunu papa Mor Mbaye mm-hmm. bi mu génnee àdduna yàggul bu matee une ou deux semaines ci la yem mm-hmm. ñun dañ daan tëgg ay mbapat ñooy ay doom ñu nag ay doom ñooy ànd bu ñu ko tuddee mbapat som bi ñuy jox bon dama koy sax wax pour ñu xam modeste doomu aadama bi ni jëlul alalu mairie Grand Yoff mais day yëkkati dix mille francs jox la ne la lii laa am Abdou lii laa am mi ngi ci dëgg maa ngi ci fenn ñun boobu ñu gën a nekk xale mais la ñuy wax non maire bi dañ ko tuddee dix mille la jox mais après la ñu comprendre. xaalisam la ni kii liggéey gox bi moo ko taxoon a jóg. Mm-hmm. pas que maanaam di fugg. ci mm-hmm. alalu réew mi. Mm-hmm. ci alalu ñi nga xamante ni mooy commune bi. donc pour man njiil ndox lay demee. tuddee nañ la la nga am. yow lañ tuddee la nga am nga doyloo ko nga yóbbu. boo amul dara nga dem ak sa jëmm ak say mbokk ak say xarit ak say am di jàmm. pour man je vois comme ça les choses. ok alors euh, kon yow su ma la déggee moom dafa da nga wax ne moom li mu wax euh, kon xëy na ñu fi jugee làmbe ni ñu leen ko doon tuddee parce que dafa demoon ba ëpp loxo xëy na ñoom kon ci xaalisu réew mi lañ naan jël euh, dëgg la kon yow loolu nga confirmer ne kon loolu la Birame bëgg a wax. ah Birame daal li mu bëgg wax mooy moom ragal na parce que gis na ni peut-être affaire bi fol lañ ko jàppee foo la. Mhm. du foo dafa am foo yu nduru foo te du foo. làmb du foo. culture la nag ñiy tëgg lamb nag ñoom dañuy jaay dañuy dañuy jaay ay kii dañuy am ay sponsor comme ni nga ko waxee sànq loolu loolu mënu leen dimbali. déedéet. Hmm. maanaam xam nga lu tax mënuñ mënuñ ñoom mucc ci lamb mënuñ mucc ci football mënuñ mucc ci leneen ak leneen ak leneen. Hmm. ñan ñooy def lamb jali lamb. da nga naan Zarko Garaayof. Hmm. Modou Lo Balla Gaye Ama. keneen ak keneen Modou Lo Modou Lo bu nee football. parce que ñaata jeune fa ne un ba vingt six ñëpp jóg. Mhm. c' est la jeunesse. Mhm. Mhm. nga dugg xaaral ma naan ataaya. <laughs> Oh, fii lu bees la. fii kay lu ñu neex la ñuy def. ñun ku ñu invité ñu jàpp. dañ leen conflit ñun. ah ñun ku ñu invité. ñu dem. ñun boo boo juumee sax bu ñu Jolo merci. naanam ma ne la Pikine ñaata jeunesse. la. Mhm. bu amaa jógee ñu. ñu topp ko ñu jóg. Mhm. Mhm. te président de la république boo waxee duñ la dégg. fu ne nii Zarko. mën na lu kenn mënul Grand Yoff. muy wax ñu dégg ko. Zarko rek ngeen wax ñu dégg Zarko ngay gis mu génn Grand Yoff. ñaata mbooloo topp ko mu canaliser ñëpp. Mhm. nga dugg Kër bay Fall zoo technique lu muy dof dof gars yi di ko foog dof zoo technique am na ko fa mhm. nga dugg biir siin ordinateur mhm. lutte simple am na ko fa ñooñu boo leen amee ci réew da ngay calme basta nga xool moom liggéey ñoom ci njub xool moo liggéey ñoom ci jeunesse bi mais pas ngay xupp xanaa xamoo ne xupp ak néewal doole. Mm-hmm. moo fi jëlee Macky Sall. ci lu wér. xupp ak néewal doole. Mm-hmm. moo fi jëlee Macky Sall. Mm-hmm. te li ko fi jëlee fi ba léegi. maanaam nit. dëkk dafa am raison mais quelle raison fausse. xam nga wax xam nga njort na ni kon moom ña fa doon def dafa am luñ doon yàq. waaw ah léegi moom jot moom kon na njort ni dafa war a dem lu yàq. waaw na jël ci poosam. waaw na jot ni dafa war a dem rek te du yàq. poosam ñàkk poosam. ndax eh maa ne la ministre de la culture bu amee. culture am na budget culturel. Mhm. daf ko am. Mhm. muy waa Sorano am neen ci. Mhm. ñun Sénégal ñoo ko dul laaj. ba suñu njiit yi fi nekkoon xëy na di ko jël. kon xaalis boobu mhm. fii la jëm. lii fii la jëm lii fii la jëm lii la mhm. mhm. annuel yi effectivement. lan moo lan moo lan moo waral yi di école ba di di jàng ba ba ñuy tëj ñu ne Fosco. Fosco waaw. lan moo waral arco yi nangam sangam ñun ñëpp fës artistes yi ñu def festival defee def FESPACO. est que ñu ngi lan moo waral maison de la culture Douta Seck. Mhm. Mhm. lan moo waral théâtre national Daniel Sorano. Mhm. lan moo waral grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. lan moo waral musée. ok pour ñu fay def suñuy événement ñoom ñu ciy jàpp. am na ay événement yoo xamante ni sax da xool bu demee ba dem a dem duñ ci fay dërëm te dañu ko war a defal journée de la femme. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen buñ ko doon wax duñ fi jóg. loolu dafay nekk. xam nga kañ looy wax. Mhm. dafa am lu fay demee ak lu mu fa dul demee. d'accord tey jii bëreet. Mhm. buñ nee làmb am na faw sécurité jug ju état. Mhm. Ah, làmb ju amul sécurité ñëpp day. dëgg la wóorul. kon bu maanaam moo leen cee génn. xoolal rek nga ni maanaam moom. dëgg la kilifa la mais na nangu ni juum na. waxam ji. man sama baat ci kaw lu ma ci def baax na mm. de un moom nekkul culture fu parce que instant bi le problème mooy le pétrole et le gaz ñun suñu problème sérieux loolu la te te te facteur boobu bu doxee. Mm-hmm. da leer ni. Euh, fépp fépp day naat Sénégal day naat. kon baax na kon nañu xaar loolu euh, alors comme comme ngeen ne dafa juum kon na jàpp nañ jàpp ne dafa juum rek waaye xëy na moom dina génnaat. leeral li tax man man maanaam fës su ma sañoon. non non moom su ma sañoon. waaw maanaam su ma sañoon. Mhm. Jali keroog wax naa ko moom mhm. moom. ma ne gouvernement bii. dañ mhm. bàyyi xel lu bëri bu ñu nangu ñu piège leen. c'est important moom yii gars yi di leen wax ay toog muy dox jeex na fi ay lii lii lii lii xam nga lan la. kii moo leen defoon lii. mooy dañ leen di pièce pour ñu bañ liggéey nekk fi di fay wante. di fay wante mm-hmm. buñ ko def wax ñu bëri di jàng ko. Mm-hmm. xam nga luñ leen fale. Mm-hmm. liggéey. d'accord liggéey lañ leen far pour suñu Sénégal jëm ci kanam yii ñu leen di wax da ngay xam ne biiram mii wax jii mu wax. yi di wax la dégg ñu wax la parce que du da ngaa dégg Ousmane Sonko mu sax ni affaire de nangam sangam. wala wala da nga ko dégg ci Diomaye. parce que da ngay wóor moom mu ngi déglu yi Sénégalais di wax ci ginnaaw. ay toog muy dox jeex na. Mhm. buñ leen tuddee nii buñ def nangam sàngam nañ bàyyi TikTok bi. Mhm. bàyyi nangam sàngam te concentré wu suñu dëkk dëkk bi du TikTok du Instagram nii WhatsApp mhm. nii Snapchat. dëkk bi liggéey a ko yor. ok nañ bàyyi wax ji te liggéey. d'accord euh, xam naa moom mi génn wax ngeen ne dafa juum peut-être dina génnaat wax li tax mu wax ko ndax ku nekk boo waxee xam nga li tax nga wax waaye ba tey tamit téléspectateurs yi mën ngeen participer ci 77 810 90 90 ngeen bokk ak ñun jotaay bi le